رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى lépp lu ñu war a wax ci Oustaz Ahmad Ba xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi wax na ko ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax amin ci mboolem ñaan yi nga xam ne ñaanal nañ ko ko ku nekk xam na liggéeyam bésam wane na ko jaar-jaaram wane na ko damm damm la waaye yàlla am na jàng yàlla nañu ko yàlla jàngal baat yooyu ñu wax ci commencement bi rek moo koy jàng inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi tàggoog moom tàggoog nit ku baax borom xam-xam mu tawaade koo xam ne dundam yëpp ñun bañ ko xamee ba léegi liñ ko xam mooy léppam rek ci bàyyi la loolu nag doy na yóbbal ku jëm àlaaxira yal na yàlla deseel barkeem ci njabootam te njaboot gi buñ ko waxee mooy doom yeeg taalibe yi desal njàngaleem ñi nga xam ne yar na leen ñu continuer fekk loolu ñu continuer mooy dundam moom daggut mu ngi dem nii tey waaye dundam du dagg incha allah yal na yàlla desal barkeem yàlla utalal ñu lu gën li ñàkk yàlla dëkkale ko Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dëkkale ko Cheikh Tidiane dëkkale ko Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam azam allah ajana wa ajrakum ajana allah wa iyyakum fi musibatina wa abdalana khayran mimma faqadna assalamu alaykum رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى